mbokk yi boroom naaru góor si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye borom naaru góor grand marabout di boroom baatin boroom xam-xam ak boroom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor Seydina Ousmane Ndiaye mi ngi leen di yëgal ni naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di toll nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire ar Dakar arrêt 34 terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 jërë ngeen jëf mbokk yéen toxnot yàlla Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafetlu ni ngeen di toppe suñ chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew gërëm leen bu baax yéen suñu mbokk internautes yi ñuy topp rek ba ñu daal di am lu toll ci quatre cent mille abonnés loolu nag c'est grâce à vous internautes Sénégal ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci rek ni ngeen ñuy toppee ak liggéey bi nga xamante ne seen chaîne mu ngi wéy rek di leen ko amal ba ngeen safoo suñu chaîne bi rek ñu daal di am lu toll ci quatre cent mille abonnés ngërëm li nag yéen internet yi yéen a ko moom gannaaw ba nga xamante ne yéen ak ñuy topp saa ne ngir informé lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew ñu door suñu acte du jour ak appel laayeen bi nga xamante ne ni ki tey ak suba la mu nekk appel boo xamante ni ñëpp ñoo ci gis seen bopp rek gannaaw ba nga xamante ne ñu ko app sax mu nekk téeméer rek ñeent fukk ak ñetteelu appel bi muy cent quarante troisième appel loolu nag nekk loo xamante ni jullitu yàlla yëpp cay daje rek ngir daal daal di wuy si rek ci dëkk bu tedd boobu ngir rek jaamu yàlla waaye nag ñu ngay gis ci image ak na nga xamante ne bërëb ba na mu weexee lool dal di yànj lool tamit mu nekk lu ñëpp di rafetlu rek l'islam daal di amati rek ci li nga xamante ne moom moo di appelu layen bi ci loolu nag la des ba tey rek gis ngeen kooku di awa rasul ak tenue ba nga xamante ne na koy def mu daal di soppip colin loolu nag gannaaw euh, publication ba mu def euh, ñëpp daal dinañuy apprécier rek euh, ci colka ga nga xamante ni daal na koy def rek ngir appel ba nga xamante ne ñëpp daanaka ñu nga wutali rek Yoff Cambérène bu ñu jogee ci biile appel ñu wax ci baptême bu Papis Xarañ Lo l'ami de Modou Lo moom nag mu ngi doon ama rek lii di ma waaye nag ay invité surprise rek lañ fa daal di nemmeeku bokk na rek ci ki nga xamante ne moom moo di maam Thierno borom daaru daal di koy surprise rek teewa ci li ni mel keneen ku daal di def rek surprise daal di jege lool soxna wu Papis Xarañ Lo di Marième Faye Sall première dame ñëw tamit ci bile baptême mu daal di nekk loo xamante ni kii di Papis daal di na koy rafetlu bu baax a baax naka noonu nag Modou Lo ki xamante ni sax xarit la ci Papis Xarañ Lo daal nay teew rek ci li ni mel yenn sax ci ay waxtaan yoo xamante a jub na fa rek muy wax rek ca combat ak kii di Boy Niang moom nag mu jàpp ne bile combat lu war la ndax kat même génération lañ kon nag moom du éviter benn mbër. bu ñu jógee ci loolu ñu daal di wax mardi gras bi nga xamante ne daal di nañ koy célébrer rek ni ki tey loolu nag ñu ngay gis xale yaak ku ca nekk colk gàkk ka ngay imiter rek lañ ca gën a ràññee nag bokk na ci kii di Ousmane Sonko kii di Serigne Modou Kara ak ka nga xamante ne moom moo di Dip Doundou gis mu nekk ay xale yoo xamante ne daal di nañuy reprendre rek na nga xamante ne noonu la personnalité yooyu di solo rek waral ñu daal di koy def rek ni ki tey ci ci mardi gras bi loolu nag bokk na ci waajal rek euh, temps carême bi nga xamante ne euh, suñu mbokk chrétien yi euh, ñu ngi ciy fas yéene dugg rek ni ki suba xanaa rek ñu leen di souhaiter un cinq temps de carême. wax ci leneen kii di ndaxte nag à l'occasion de son anniversaire elle a reçu beaucoup de cadeaux de la part de son mari loolu nag daal di nekk ab mbégte mu rëy rëy ci moom ndaxte nag waral sax mu daal di rek a fent wéy wala sax reprendre wéy bu Pape Diouf di Superman Love di ko rek wéyal ka nga xamante ne moom moo di borom këram ak teranga ya nga xamante ne daal na koy defal rek à l'occasion de son anniversaire jàll ca diwaanu Sandaga mu ñu ca bëri ba ñu demee rek amali seen màggalub Kazu Rajab ba ñu ñëwee nag dañoo daal di fekk seen i cantine ñu déjjati ko loolu nag daal di nekk loo xamante ne métti na leen loolu ndax jotuñu lii di préavis jotuñu dara rek luy waral ne dañ fa waroon a jóge waral nag ñoom ñu dal di wane seen ñugg-ñugg xol rek pare ngir daal di def rek ab grève boo xamante ni c'est illimité Mia Guissé moom la ñuy gis noonu rek la belle Mia toute belle toute ravissante mu nekk nag koo xamante ni jamono ji daal dinay rek di réseaux sociaux yi rek a travers euh, publication yi nga xamante ne mu ngi koy def rek euh, moom Mia Guissé euh, depuis nag sa séparation avec Nofés moom mu ngay suivre rek a solom waaye a di dund mbégteem bu baax a baax wax ci keneen muy bàjjan bu série polygame gannaaw nag ab waxtaan bu mu seqoon ak mbay mu ngay wax nag ca la nga xamante ni sax ñu nga koy critiquer rek tent ba mu def a bopp a moom nag muy wax sax naan yoonu kenn nekku 28 ans de mariage kon nag xàmme na lu baax xàmme na lu bon kon nag képp koo xamante ne mu ngay critiquer rek tante ba nga xamante ne daal na koy def ca bopp ba yoonu kenn nekku si. kii di Ndiab nag gis nañ ne tournée ba Sidi Diop demoon ak kii di Viviane Chidid moom bokkul woon ca ña ca dem loolu nag ab laaj dal di samp ñuy wax sax naan ndax Sidi Diop dafa daal di tourner la do a Ndiab moom danseur bu Sidi Diop daal na ci andi ab leeral rek ci li waral sax Ah, demul woon na ca tournée Viviane boobu ak ñi nga xamante ne ah, ñu nga cay am rek xalaat bu ñaaw moom daal dinay rassuré bu baax a baax di wax rek naan jamono ji la gën a nekk ak Sidi Diop loolu nag nekkoon rek tournée bu Viviane Chidid Nabou Dash daal dinay rek réapparaître bi yoon nag mu ngay dal rek ci femme voilée yi moom Nabou Dash nag yakk leen lu mel ni xeme di wax sax naan góor ñi bu ñuy takk jabar rek nañu xooli ñeneen ata wàcc fi rek ñi nga xamante ne moom moo di les femmes voilées loolu nag daal daal di nekk loo xamante ni sax mu ko doon wax rek ba muy def ab live am bi yoon nag ca ña nga xamante ne ñoom ñooy muuru rek moom Nabou Dash la amee woon rek ci bile live ñu daal di wax ci la belle Adja Diallo toute belle toute ravissante mu ngay séduire rek ñii di internautes yi moom Adja Diallo nag ca otoom na nga xamante ni sax mooy snap yemu publier rek ku ca nekk mu nga ca amal ay commentaire rek di apprécier bu baax a baax la Adja Diallo kii di Ngaaka Blindé gannaaw nag mu demoon Kazu jàpp ca ka nga xamante ne moom moo di sëriñam di sëriñ Abdou Karim Mbacke ci loolu nag moom mu ngay wax sax naan ndigal rek lay xaar ndax kat kii di sëriñ Abdou Karim nekkul rek sëriñam kese waaye dafa nekk koo xamante ne kilifaam la te tamit conseiller am la waral nag ba moom bu jotoon ndigal sax tukkee ci sëriñ Abdou Karim ngir daal di bàyyi musique rek moom pare naa ngir def ko. beneenub artiste de Samb gannaaw muy amal séance d'écoute bu albumam bi nga xamante ni léegi mu daal di génn moom nag émotion rek la ñu daal di gis ci li ni mel gannaaw nag muy fàttaliku rek way juróom yi nga xamante ne dañoo daal di génn àdduna moom mënatul a boppam rek ci li nga xamante ne moom moo di séance d'écoute ba bokk na tamit di rek gërëmaat borom këram bu baax a baax ci nim ko taxawoo rek fépp fu mu mën a nekk rek rawatina ci musique bi nga xamante ne mu nga cay yëngu daal di wax ci leneen eh, kii nga xamante ne moom moo di Calista nekkoon scénariste réalisatrice bu maîtresse d'un homme marié gis nañ nag coow la nga xamante ne moom moo ko joteloo woon rek ak ka nga xamante ne moom moo di Mass Ndour nekk directeur bu Marodi TV ci loolu nag moom gannaaw atte ba nga xamante ni juboon na sax mu ni maison de production bi di di waroon na ko verser rek lu toll ci vingt et un millions ci sunu koppar waaye nag gannaaw Mass nduur daal di génn indi ay leeral ci. li ni mel ah, mu mel ni nag moom Calista xaarul dara ngir génnaat rek wax sax contrat yi nga xamante ne moom moo ko lié woon rek ak Marodi ak sax lépp loo xamante ni rek échange la ah, tukkee ci digganteem ak kii di ah, PDG ba di Mansour lool loolu nag ngir rek andi leeral ci atte boobu nga xamante ni sax defoon nañ ko rek ngir wax ne maison de production bi daf ko waroon a jox rek lu toll ci vingt et un millions ci sunub koppar coowal Adji Sonko mu mel nag bokk na a maître Khoureychi Ba mi de la défense la daal dinay génn rek wax sax ci chambre d'accusation bi ak na mu rejeté appel ba kii di Ousmane Sonko daal di defoon rek loolu nag bokk na ca ña koy layool daal di saisiroon rek conseil constitutionnel waaye nag mu mel ni ko daal di gàntal rek ba nga xamante ni ni ki tey sax la bataaxal boobu daal di génn kii di maître Khoureychi Ba daal di rek dëggal li ni mel wax sax ne chambre d'accusation bi dafa daal di rejeté bi appel journaliste bi di Pape Alé Niang di dinay confirmer rek ne keroog ba ñuy daal di jàpp Sonko di ko dugal ci oto bip bi moom nag dafa daal di amoon rek ay nervi yu taxawoon ca tunnel ba rek ngir daal di koy tiire loolu nag moom pap ale daal di dëggal li ni mel nag gannaaw ba nga xamante ne rafetlu na liggéey bi nga xamante ne brigade d'intervention polyvalente def nañ ko jëm rek ci ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko nañ ko génnee ca wotoom ba dugal ko ñoom ci seen oto mu mel ni nag nag loolu ñu daal di def ñu ci bëri ñu nga cay kaas rek ah, di wax sax naan lan moo tax ñu génne ko waaye nag ngir sàmmoon kaaraange ah, kii di Ousmane Sonko moo waraloon nag waa BIP daal di def li ni mel gannaaw ba nga xamante ne ah, dañoo jàppoon sax ne ay nervi dañoo taxawoon tem rek ci tunnel bi ngir rek daal di dal ci kaw Ousmane Sonko. kii di Cheikh Yérim Seck ni kii démb nag ca plateau Sen TV daal dinay dal ca kaw Mame Makhtar Gueye njiital Jamra loolu nag bokk na ca moom yóbbu ko ca prison ba mu yox sax naan kii di Mame Makhtar ñëwoon na seet si woon ko waaye nag ndeke seet si boobu yëpp ngir rek bu génnee am lu mu wax moo waraloon mu daal di ñëwoon rek seet si ko ca prison ba gannaaw nag mu ñëw mu expliqué problème maka na mu deme dafa jàpp ne kii di Mame Makhtar dafa daal di génnaat rek toog ci média bi amul lu mu waxul lool nag mu jàpp ne moom Cheikh Yérim Seck Mame Makhtar Gueye dara waralul li tax mu def li ni bokk na ci daal di ut ab buzz rek daal di tax sax ba moom mu ñëwoon yoon seet si ko ci prison ba ngir génn rek am lu mu nettali diwaanu Mbuur la ñu jëm kii nag mu ngi am lu toll ci soixante-huit ans moom nag da doon jàpp rek ab doomu jidleem di ko tëddee xale boobu nag mu ngi am lu toll ci treize gannaaw ba nga xamante ni sax soxnaam moom moo juróon rek xale boobu ca mariage am bu njëkk moom nag diiru trois ans mu topp rek di tëddee bile xale gannaaw nag soxna si daal di koy bett rek daal di jël xale ba yóbbu ko ca l'hôpital bu Mbuur Euh, ci lool nag ba ñu consulter xale bi daal di gis ne sax ne ñàkk na ndawam bu yàgg ci lool nag ñu daal di porter plainte rek bile waay moom nag ñu yóbbu ko ca yoon mu mel ni juge ba daal di na koy daan rek lu toll ci fukki at yi kaso. tàggat yaram la ñuy jeexalee wax ci jongante xarito bi doxoon ci diggante équipe nationale féminine ak ñii di Thaïlande mu mel ni nag dañoo daal di témbo ndam demul ndam dikkul jeexalee wàllub lamb Ada Fass ak Zos daal dinañ koy taxawal mbëru Fass bi nag gannaaw défaite ba mu amoon ca Zarko mu mel ni daal dinay amaat combat ak mbër mi di Zos mbokk yi safoon doon ñu teewlu lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne a jërë ngeen jëf